woon yàqu de ay waay sam sant naa sama maam di la jaso wayli wayli wayli wayli am na naar bu xees am na naar bu ñuul naar bu ñuul am naar bu xees voilà yow laa waxal ay eh, wéré eh, yow laa waxal da ngay gaañ waaye xam nga dama gis dama gaañ sama alal la jox ma ko ci ni baati naa dama lay dam eh, eh sonu naa eh eh eh sama xaalis ma ko jox yow benn paa fexal ma dawal la rek ay ay eh, daa nga jox ma ko. Eh. yow dafa loo jine toogal la. yow ay laal de yow ay eh, xoolal jox yow yow jëlal lu ma neex dama laa dama ne wee sama alal di ma ko jotee sama alal di ma ko joxaa ah. sama xaalis di fay eh wee soo paree yow kay ah, waaye kay kay nga pare mais eh Iba yow dafa jinne toogal la ah yow da laa réew eh sama xaalis laa soxla. barke maam yàlla dama lay gaañ dama lay gaañ de. koy gaañ dama lay gaañ. gaañ ñu ne da ngaa dof. yow lii lan la. yow da eh, ngaa neex eh. nag baax na baax na baax na baax na baax na lan la kii dafa neex nag lan la lu xew. kii dama dama mënu ma jël sama xaar jox ko ba mu liggéey. ah damay yow yow yow lay waxal yow loo war a jox kii. xaw ma xaw ma ko de sa yoon nekk si sa yoon nekk daal sa yoon nekk de wala sa yoon nekk si sa yoon. góor gi dimbali ma rek lan la la war a jox lan la. kii la ma war a jox sama alal la maa ko moom ko laaj ko ko laaj ko sa yoon nekk si daal sa yoon nekk si. yoon nekk si sa yoon nekk si daal sa yoon nekk si yow sëñ bi dama may ma wax defal ndaje góor gi sa yaram tàng na xam naa loolu. kii dama ko muus ma góor. amul solo maa ko maa ko doole. lan la la war a def. kii dama ko yónni sama xaalis ba mat sëkk jox ko pour mu liggéeyam. waaw mu ñëw kër ga ma wax ko li ma bëgg. waaw mun na mun na ma ko defal. waaw ma ne ko ah waaw mën nga. waaw mun na ma mun na ma si suñu qualifié. waaw mun na ma qualifié nañ ko métier. waaw yow sax laa bëggoon yow jox ma sama liggéey. waaw waaye def naa erreur dama koy dama koy nangu. vieux boo yow boo fi duggaatee eh eh yow vieux dama lay liggéey dama lay liggéey bàyyi ma liggéey yow yow yow yow yow parce que rabe laa la mi da ngaa neex yow kii ragaluma ko dee wóor na ay kii ragaluma ko bàyyi ma rek yow bàyyi ma rek dafa soyoon seen ñëpp wóor na yàlla kii ragaluma ko kii ragaluma ko de waaw man dama bëgg xam la ma ne kii ragaluma ko laa la wax man li xew laa bëgg a xam góor gi li xew lan la kii dafa yàq ma ma ndox damay jàpp waay ma ma kii ndox dama ne pour nga ñëw taxaw fi ñu wax li biir e eh, kaay waaw ma liggéey waay kaay fii waaw yaa ngi yaa ngi dégg waaw ba mu jaaree kër ga fanweer ci juróom fukk yi ñaataay des. ñaar fukk ñaar fukk am na mi ngi sama boros na ma jox li ma moom. yow vieux ma dem jàmm na ñooy. vieux yow lekk nga ñaar fanweeri junni yow foo dugal fanweeri junni. mbiskit eh. laa jënd nee na ñaar paquet mbiskit laa jënd mu des fukki dërëm mu ngi kër ga. ah ma koy dégg vieux fanweeri junni mbiskit vieux vieux laajte doole prendre ñu ne ma yaa ko jënd ah. vieux gis nga nit day góor si s'il léegi lan la la war a jox góor li ma war a jox sama alal la maa ko moom na ma gi defal ndànk rek léegi lal bi mu la war a jox man dinaa jël lal bii ma jox la ko nga yóbbu après man ma def lal bi aw ma ko déglu ma rek dama la la saa si la saa nekk saa nekk saa nekk si la saa nekk bàyyi rek bàyyi rek saa nekk yow am nga loo wax yow war ngaa wax yow war nga wax yow yow yow yow fii fan nga mën a liggéey ab lal bay engagé juróom fukki junni ñu di la jox salaire waaye sëñ bi ma kii ngay li nga xamul benn soo góor gi ah dama jox sama xaalis ma am jox sama sama sama sama samay samay bagage ci loolu laa nekk sama laaj bi moom qualifié na léegi yow ku la xool sa kanam gi xam ne xamoo dara sa kanam gi mel ni xuuri xët amul solo góor gi léegi fan nga junni lan la war a jox waaw kon lan la la war a jox li ma war a jox xam na ko dama jox sama xaalis ma am jox sama alal góor gi man maay wax ak yow wala kon li mu la war a jox amul tur soo nekku si de soo nekku si soo nekku si de yow yow yow waroo sax wax góor gi lan la la war a jox. ah moom lan la la war a defal. kenn ki li mu war a defal. waaw li mu war a defal leen dog la. ñoo doon ñu waxaale bu jubóo ma waxale ba bëgg. waaw man lu ma liggéey yàqu. Mhm. yaa ngi dégg. waaw sama bu toll man ndax moom li ma ne nag day yeex. waaw moom ñëwee nag ma waxale ko bëgg defal mu ne mën na ko. waaw mu ne qualifié na. waaw ma jox ko sama xaalis dafa joxul pour lan. léegi góor gi waaw léegi may ma feex ñetti fan. waaye loo xaalis ma ko mënuma toog ñetti fan de. loolu lan la la war a def condamné condamné condamné <laughs>